suratul xaafir yi mooy saaru aji jéggale ji xam ngeen xaafir tur la ci tur suñu borom yi subhaanahu wa taala moom moo tudd alxaafiru mooy aji jéggale ji moom lañu ñu titré saar wi nag tey wa qaala rabbukum udduuni astajib lakum aaya la boo xam ne daf ñuy xamal ne ndekente ñaan jaamu yàlla la aaya bi daf ñuy xamal ne itam ku dul ñaan yàlla ndekente nit ku rëy nga aaya bi daf ñu xamal itam ne ñu rëy ñëpp lanka ñaan yàlla doyloo seen bopp safara la ñu jëm yàlla ñu ci yàlla musal borom bi nee na wa qaala wax na rabbukum seen boroom lan la wax uduuni ñaan leen ma astajib lakum ma nangul leen uduuni woo leen ma astajib lakum ma wuyu leen kon doomu bi warul dañ benn waxtu Lulul dafa war di sax di ñaan borom bi subhanahu wa taala parce que ñaan li tax mu nekk jaamu yàlla mooy ki ñaan dafa gëm ne moom amul ki muy ñaan moo am moom ku ñàkk la bur bi ku am la moom soxla na te bur bi ku tabe la moom jaam la te ki muy ñaan sang la gis nga li laxasu ci ñaan moo bëri mooy nangu gi nga nangu ne yow munoo amoo xamoo euh, euh, borom bi moo mën moo am moo sañ mooy def lépp koku mi ngi laxasu ci bir ñaan heure bo sege di ñaan yaangi toroxlul borom bi kon yaangi ngi jaamu yalla nangul ko nguuram gi nangul ko amam gi nangul ko tabeem gi daal di delloo sa bop di ab jaam bu ñak bu am ay soxla yu mu la fajj ba diko ko lo ba diko ko fajloo buur bi motax borom bi ne innal ladina nak ga ñi nga xamne nak yastakbiruna ñom dañu reuy an ibadati ci jaamu ma gis nga kon na nga nan an ibadati ci ñaan ma ñi nga xam ne rëy nañu ba duñu ma ñaan parce que gëmunu ñaan ñoom xam ñu gëmam àddina defe nañ ne ay pexe rek moo fiy dox ah àddina nag du noonu àddina kay li fi ne lépp da ngay sabablu waaye lay sottil ci loxo yàlla la nekk boo doon tabax bâtiment maa ngay jënd oto bu njëg yépp tege ci sa loxo ba mu leer na tege na da nga gis ka kay jaay booba rek nga war a ñaan yàlla pour mu sotti parce que diggante bi nga amee njëg gi xam ki koy jaay ngeen di waxante ak lii tax nga am li nga bëgg diggante bu soree la dogalu yàlla rek mo fa xaj leneen xaju fa su ko defee nee na ñooñu nag moom nga xam ne ñoo rëy ci bañ maa ñaan parce que doyloo nañ seen bopp ñooñu day sa yedd xuluuna jahannama daanu leen dugal jahannama daaxirina ñuy way torox sadaqallahu alazim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu